ay diisoo dama leeni way dinaa leen waya waya de el biso meja lay wo le le le le zista sayna dinaa la jiyan dinaa la waya zayna xale baa ngi di kii moo am maanaa personnalité bëgg el biso ba mu jeex elaasoo taalibe sëriñ Masamba dama lay way di la di di la kaje kii moo baax yaay sa yaay liggéey sa baay elaasoo te ma ngi la kaña la taga la sita sayda affaire bi fii la El Vision Médias lay tiitara woo woo woo ma ma ma ma bëgg xale El Vision waaw waaw nga ni Moussa gis nga ne El neexee Moussa ñi amuñu morooma déedéet waa il bi soo amalee bëgg looloo cima wala sista say naan ni mu taxawee waaw aka jongoma ela soo tali bi Serigne Massamba Mbacké ah, ki mooy murid bi bëgg Serigne Bamba ba mu jeex nga ni ne bul ko gis muy démba yaay nga di ko séedee dë. nga ni lu ñeew jëw baaxul El Vision la tiitaroo. bala ay suburi sëriñ Mbàkke maaram. Mbàkke Mbàkke bul ko gis muy dem waaw woo ay de. sëriñ Mariasin. nga di ko séedee dë. nga ni lu ñeew jëw baaxul ba bàyyi seen maam. loolu dëgg la. sëriñ Mbàkke Balla. ak kooku maam ceen na ndamal daray maamam Idrissa Mbàkke baadu maraana boora madiyaana musaxiir Mbàkke baadu Sëriñ Daara Mbàkke baadu sista Seyna man maa la wóolu. dinaa solo ma siree ndax. wala wëyal wëyal. mbàkk mbàkk du war mbaam. voilà caa boo war a cey maar. ayiye ayiya. am sërëram sërëram. second. Wow, wow. I'm so fine. Mama, so fine. Do. Mama, so fine. Follow us. Yara is a Ah, yeah. Ah, yeah. Ah.